Alors,

on va parler, discuter des problèmes des Sénégalais, essayer de trouver des solutions à ces problèmes-là. Là, on est venu au studio Sankara pour voir vraiment une figure emblématique du hip-hop au Sénégal. Ben Ndanan Bohanaken d'autres représenté au Sénégal, en Afrique et dans le monde, euh, le grand DJ Awadi. surtout ndaanaan international comme ni koy woowee thème émission teg xel bi mooy la problématique des marchands ambulants un casse-tête donc c'est par rapport à ça qu'on va discuter jéem a trouver des solutions aller sur le terrain voir les ambulants et tout tout tout mais avant ñuy sori ma nuyonte ak grand bi bàyyi ko mu nuyoo ak téléspectateurs yi. te remercier pour l'honneur que tu m'as fait ma bokk ci premier invité yi et aussi dire que sujet bu nga choisir sujet bu sensible la waaye sujet bu am solo la parce que ambulant loo xam ne mënul ñàkk la mais euh, war tam am ay star Sénégal euh, le programme bu ndax jëlos le mieux vivre dafa war a am le mieux vivre ensemble dafa war a am tu penses que hip hop war a trouver des solutions à certains problèmes yu demee nii yu mel nii quoi Euh, je pense qu'il ne faut pas trop de prétention ils peuvent nous trouver des solutions à la place des politiciens mais ils peuvent mën na joxe xalaatam donc euh, ñun je pense que ci biir loolu dañuy joxe xalaat euh, pour que nit ñi aussi xam ne ay citoyens lañu lu xew ci suñu cité am nañ ci wàll donc ça nous intéresse ça nous intéresse ça nous interpelle on a le devoir de dire de, de dire ce que nous pensons maintenant je pense que les autorités et on le, a aussi le devoir de nous écouter. Mm. Euh, mais on a le droit de dire ce qu'on pense et ils ont le devoir de nous écouter, puisqu'ils sont censés être là pour nous, travailler pour nous. Pour les populations. Et, on les paye pour ça, mm. on les met dans les meilleures conditions, mm. puisque c'est nos employés. Euh, nous autres employés. non le concept là est très important pour mm-hmm, moi. Mm-hmm. Euh, le président est mon employé. Mm-hmm. je suis son employé. voilà, euh, il a le mandat, mais c'est moi qui lui donné le mandat. C'est sûr. Donc à partir de là, euh, moi le président, moi le maire, mon, mon, mon point de vue compte. Mm Ce n'est pas le seul qui compte, mhm. mais il compte. Il est très important en plus. Et je tiens à le faire savoir et le faire valoir des gommets. Il est très important, dégg naa le grand. Mais bon, léegi dama bëgg tout simplement qu'on aille sur le terrain. Ouais, on va rentrer dans Dakar, essayer de voir naka la gars comme je vous disais tantôt dañu déplacé wu ak Grand Awadi ñëw fii euh, ci champ de course champ de course nekk benn site de recasement des marchands ambulants bu mag boo xam ne ñun ñu bëri ñu nekkoon ci bedd mi foofu lañ leen jëlee indi leen champ de course fii def ko un grand marché boo xam ne toutes les personnes qui habitent Dakar et aux Dakar war nañ fi mën a ñëw jënd fi ci ay bagages et des choses comme ça. ñu jox ko mu nuyoo d'abord. maa ngi leen di nuyu bu ngeen ci loolu dinaa ci sawar a tontu. parce que lal yi ñuy lal ci mbedd mi dama jàpp ne nekkul loo xam ne lu ñu gënal la kon bu ñu demee ba ñu defaral ñu benn marché ne ñu ñëw leen fii ngeen nekk fi daan fi seen doole te duñ leen fi jëlee ah kon loolu ñu tamit dañ ci profité sant bu baax a baax. Ani la ñuy seet si pour euh, waxtaan ak moom aussi si problématique bu marchand ambulant yi parce que c'est personne boo xam ne elle est très intéressée te xam na si lu bëri donc mënuñu def lu dul. waxtaan ak moom si problème boobu salaamaaleykum maire Adi. waaleykum salaam wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu yéen waa TFM euh, di nuyu DJ ak. Ah, sama invité bu ñaawul bi DJ Awadi. <laughs> DJ Awadi soppe xale yi. Mm-hmm. donc euh, di nuyu aussi équipe bi nga àndal yëpp. Mm-hmm. di nuyu aussi sama mbokk marchand yi ma bokkal marché bi. ci sit bi nga xam ne tey gannaaw yàlla. ci ci biir émission teg xel. déedéet kay xanaa émission bi nu mu tudd ngeen. teg xel kon nag ay ca ñu jëfandikoo xel yi. xel li ci xel yi donc ah. euh, population bi jëriñu ci ah ñu ne mu nekk nag projet boo xam ne bii dafa yàgg ndax 2007 euh, 2014 ça fait 7 ans bu nga xamee ne bii le phénomène du marchand ambulant yëngatu na fii ci Sénégal ñu nekk ci di ci dox ànd ak commencé ko woon nag ak euh, l'ancien maire de la ville de Dakar muy la le maire Pape Diop yàlla dogal Pape Diop bu fi jógee. comme on dit souvent que l'état c'est une continuité maire bii di Khalifa Sall yàlla indi ko fii mu nekk nit koo xam ne kii comme ni ngeen waxee tey teg xel man ma gëm ni moom ci doomu aadama yi gën a xelu ci Sénégal ci la bokk ndax xelu weesuwul rek nga seet doomu aadama bi xam ne kii kat dafa nekk ci situation boo xam ne bi situation bi mu jànkonteel xëy na baaxul mais man dama koy bëgg a defal dara mais li ma koy defal dama ko ciy boole defe naa loolu mooy li ñuy wax la participation euh, euh, le le travail inclusif moom la Khalifa Sall proné woon ak ñun bi mu ñëwee en 2009. constance boobu nag ñu dund ko ak moom 2009 ba 2014 xëy na peut-être affaire bi yàgg na mais Khalifa la mu ñu waxoon keroog ba mu ñëwee toog. loolu la ñu nekkee ak moom ba tey jii ñu ba tey jii yàlla dogal tey ñu mun a ñëw toog fii tey kenn ku nekk am numéro boo xam ne danga naan kii kat sama place la bu ëllëgee man xëy na su ma deewee sax sama doom mun na ñëw dond place bi te yaakaar naa ne loolu kon gor su waxoon la mu waxoon la te mu toog. mais man dafa am benn élément bu ma tourné woon Pikine ci benn jeune marchand ambulant boo xam ne Lamine njaay la tudd dañ ko seeti woon këram xool nu muy dundee parce que ñun dañ la fay enquête ah. émission bi émission la boo xam ne nii du ñu ñëw rek euh, raay ci kaw non on creuse ba jot li ñu war a jot. def ay enquêtes depuis des semaines ñu def ay enquêtes pour jéem a xam exactement lan mooy problématique marchand ambulant parce que problème marchand ambulant je dis souvent que c'est un casse-tête sénégalais donc pour vraiment essayer de trouver des solutions il faut nga gas bu baax moo tax ñu seeti woon euh, Lamine Ndiaye élément boobu laa leen bëgg woon ak ak ak Didier. Mm-hmm. élément bee nekk nii. DJ Awadi parce que suñu invité la ci émission bi ban message nga ko mën a lancer pour affaire lu ambulant yi. waaw moom ci yéen la bokk sax ndax dafay ñëw fii te heure bu ñëwee daf ñuy bëgg daf ñuy gëm a ci li ngeen nekk dóoruwaar bi baax na teg xel bi baax na maa ngi koy lancer message ne ko moom comme porteur de voix la chaque fois bu ñuy fàtte marchand ambulant yi ci di leen euh, défendre quoi parce que ñu nekkuñ ci ay caaxaan ci moom ci lu jaar tëjalu mbedd yooyu ba tey mu dégg daal yi ñun ci dynamique boobu lañ toll xëy na peut-être nag ku am jàppal génn si moom nag bu porteur de la bu waxee xëy na dinañ ko déglu par rapport ñun da koy lancer appel comme ça fu mu dem rek. ñu jàppale ñu quoi te mu xam ne tamit ñun dañ koy béggee parce que ñun ci suuf suuf la ñuy dund ñun ay ruq si ci suuf suuf la ñuy dund boo xoolee. waaw boo xoolee ñi ñuy dund dëggantaan moom ñi nga xamante ni ay originalité la ñuy teg par rapport ak fexe lu rafet te ndax ñu affaire yi même buñ gëmuñu lool nit ku original ku naturel comme moom ñun kooku la ñuy wër waaw. Euh, grand waa ji mi ngi lay interpeller si biir. Euh, euh, Euh, kii bi mi ngi si biir élément mi ngi lay interpellé di la wax euh, est-ce que vraiment jàpp nga vraiment lu mu ci wax quoi. si man lu mu ci jàpp mooy c'est vrai que tey yàlla may nañu euh, kaddu ba ci dëkk bi donc forcément il faut qu'on puisse utiliser ça à xam lu ñuy waxee fu ñuy waxee lu ñuy wax fulal tam la ñuy wax donc je pense que lu ma wax c'est vrai moom da koy dund. mën nañ ci wax waaye dunduñu mhm, mhm. Euh, si ñaari boor parce que aussi bu kenn fàtte ne nous sommes des acteurs économiques nga xam ne dañu participer si PIB PIB national bi mhm. donc euh, mais participation ba xëy na peut boo gisee mënuñu ci bénéficier wu euh, c'est-à-dire que un manque d'organisation moo ñu dab de structure parce que buñ ñu organiser woon nañu waroon organiser woon structuré wu je crois que li ñu bëgg dinañ ko am mais xam nga balaa nga mën a laaj sa sa droit dafay fekk nga mën a ràññee lan mooy sa devoir te loolu aussi réer boobu dafa nekk ci ñun moo tax bi ngeen waxee xel ma yaakaar ne nag à travers sa euh, émission bi dinañu xel yi dinañu ye dinañu yeewu je crois que à travers le monde tey loolu moo xew formalisation du secteur informel bu ñu demee tey ba bureau international du travail taxaw ne ren cette année dafay def benn recommandation sur le secteur informel pour ñu xool nan la ñuy aider les jeunes travailleurs du secteur pour ñu mun leen a formaliser je crois que ku dugg dans le cadre formel rek di nga am ay droits. te mmh. droits yooyu boo ko amee di nga mën a gën a tekki lu raw la nga daan tekki. suñu slogan nag mooy dama bëgg a tekki. mais aussi bëgg a tekki te xamuloo yoon bi ngay jaar pour tekki toujours dafay tax dafay nax saayal doole yi doomu aadama kon yaakaar naa te xel tey dinañu dimbale ci xel yi dellu si waat ñu xool nan la def. émission Tek Xel Tek Xel aussi c'est une émission qui parle un peu hip-hop qui de pop mais grand man question wala bëggoon poser actuellement mooy ci yan projet la Awadi ne actuellement quoi ci yan projet nga nekk actuellement. ah projet yi bëgg na bëgg mhm. ama ah, bon temps yi soo gisee lu may toog Dakar bëriwul parce que je bosse avec euh, l'UNESCO mhm. sur un projet qui s'appelle la route de l'esclave donc ça m'amène à beaucoup voyager on était au Brésil euh, ñu ngi Paris et puis les célébrations aussi des vingt ans d'un projet qui s'appelle la route de l'esclave okay. Euh, avec l'UNESCO maa ngi aussi ci benn un travail sur benn comédie musicale justement qui va s'appeler la route de l'esclave avec des artistes un peu du monde entier ça mais quand même, je tiens à faire la création ici, travailler avec Sorano euh, pour la création, faire venir des artistes un peu du monde entier, euh, mais la mise en scène va être faite ici, euh, les répétitions, la, toutes les créations vont être faites ici. Euh, le travail aussi sur euh, la vidéo, ça va avoir une importance. Euh, ça va se faire ici. je travaille sur mon album, on prépare les tournées d'été là. mooy été bi moom il faut nga demoon ba partout dans monde. parce que dégg naa ko en secret de polichinelle que un album assez intéressant on va dire parce que voilà on travaille sur le son beaucoup on travaille aussi sur du reggae encore. Euh, mais aussi sur beaucoup d'autres musiques. Il euh, la collaboration avec, la, avec Marie Ndiaye, euh, on, va, la montrer encore d'une très belle manière. a une belle voix, on va continuer les enquêtes du sergent Médina. Mhm. dinañ dellu si encore si waxtaan si ce que Awa di fait de bon et de mhm. bien mais dañuy egg si seet si benn marchand ambulant encore boo xam ne suñu waay la. monsieur Ndo monsieur Ndo waay. ñu ngi ziar bu baax waay di leen dalal jàmm waaye di ngeen yegg see vraiment ci site nga xam ne maanaam fi la jafe-jafe yi dajaloo ambulant yi gars yi rënk leen ci biir ci anam woo xam ne maanaam tegul ci yoon rax lu bëree bari tey ñu am vraiment satisfaction ci li ngeen yegg si fii ñu am lu bëri loo xam ne tey war nañ ko mën a wax ci micro bi. Sénégalais yi dégg ko autorités yi dégg ko buñ ci mën a trouver solution ñu trouver ci solution. problème ambulance ni mu demee rek mooy li ma ciy njëkk fësal mooy maanaam ñàkk yëg gi ñu leen yëg ndax secteur informel bi maanaam gëdd bi ñu leen war a jox réellement joxaguñ leen ko. mais ñoom bu ñuy déggee prix ambulants yi autorités yi je crois que am na fi ñu leen di yóbbu di leen jéem a recaser. fi ñu leen recaser mooy fi ñu leen dugal nii fi ñu leen dugal site de recasement prévisoire c'est pas définitif. par rapport ak ñoom kër yi këyit yi nga xam ne maanaam dañ ko xaatimoon tënk ko ne bala ñu leen di yëkkati utal leen ay recasement définitif respecté wuñu ko. est-ce que yéen a ngi jéem a aussi indi bonne volonté parce que tu es d'accord avec moi que dans la plus belle euh, les plus belles parties de la capitale waa y a même plus de trottoir fa la ñu nekkoon. Euh, euh, euh, rond-point Faidherbe. gaa yaa ngi un mètre sur la rue. Hmm. c'est dangereux. ñu ngi ci kaw tali bi sax quoi ñu nekk ci secteur bi. lu tax tam aussi nga gis loo xam ne lu anormal loo xam ne du yoon nga da nga ànd ci ànduñu ci. yéen ngi waxtaan. en direct en direct avec les autorités de la mairie. les autorités de la mairie. c'est-à-dire que tout le temps boycotté da ciy am les vrais responsables yi war a ñëw teew du ñu teew. ay agent la yónnee xam nga ay éléments ñu représenté ko au nom de la au nom du maire. doon sa sago da ngeen waxtaan ak maire bi ci boppam. le maire non actuellement avec le maire mënutuñu waxtaan dañuy wax dëgg parce que c'est trop tard. saa su ne di gën a gërëm. alors on est toujours euh, sur la TFM Miroir du ñu ngi toujours si ponti bi ñëw seet si les ambulants seet si Saer un responsable ambulant boo xamante ne ni si ponti bi la nekkoon ñu dëlee ko fa recaser ko si xayma bi fii. donc moom la ñu seet si tey suñu xarit Saer touche pois à ma table Saer naka nga def. bon maa maa maa ngi si jàmm di leen bëggee bu baax tamit si dox bi ngeen ñu dox si nii seet si ñu quoi mu nekk mbégte lool quoi si si ñëw bi ngeen ñëw fii et puis et dina dina ma neex trop ndax jafe-jafe yi ñu nekkee nii ngeen jóg seet si ñu pour ñu wax si vraiment c'est le moment quoi parce que instant bii nii ñu dund bi ñuy dund nii bon na ma yàlla baal mais mooy loolu daal dund guddee gën la. parce que ci benn ci benn pax lañ nekk boo xam ne ni ñun suñu ëllëg suba xamuñu nan lay demee euh, teeg na tar na bon jéggi na dayoo daal ndaxte comme ni ñu ko waxee nii rek ni ñu doon lalee fii benn moment wax dëgg yàlla kenn ku nekk yaa ngi doon gis sa bopp parce que su fekkee da am sa taabal taabal bi ngay doon nga ciy dundal ay fukki nit ak ñaar vraiment sant yàlla daal te bés bu nekk daan nga xëy di jaay ay soixante mille ba soixante dix mille bon bi ñu jëlee fii nag dugal ñu si biir fii wax dëgg fa yàlla fii tar na trop bon vraiment may lancer appel que que que que président Macky Sall que Khalifa Sall ak bépp autorité étatique boo xam mun nga ñu jàppale. parce que fii nii bon si centre ville bi la nekk dina mën a méngoo ak ñun suñu suñu activités yi ñuy mëne fii baax na si ñun quoi lu ñu si mën a jàppale moo xam yeneen bayee la wala yeneen pour ñu jëndal ñu fii quoi loolu laay insister ñu toog fi quoi parce que vraiment on est e on se sent très bien ici quoi ñun marchand ambulant tablier recasé yi. il n'en est pas question police di leen jàpp di leen dóor ñooñu ay citoyen lañ ay sénégalais lañ parce que kooku noon benn dix benn tentaw la yor wala benn dix mille la yor dix mil moom lay jël di ko tourner jënd ci dix ceinture wala ñetti saak ñeenti dàll di wër ak moom xam nga kooku vraiment kooku dérangé wu. thématique des marchands ambulants un casse-tête sénégalais on a fait un dem les vrais intéressés de la problématique des marchands ambulants muy marchands ambulants yi on a discuté on a essayé de trouver des solutions comme on dit moo aussi si autorités parce que ñoom ils ont leur mot à dire. beaucoup euh, nous parlent d'un terrain de douze mille quelques mètres carrés qui avait été laissé par Wade qui n'a pas encore été exploité d'un budget qui serait là mais ils n'ont rien vu. Euh, il a, il a, euh, c'est quoi exactement cette situation sur ce terrain de recasement qu'ils attendent tous avec impatience ouais, vous savez ah dafa am benn principe bu bu am solo bu ñuy wax la continuité du service public donc les les les institutions demeurent comme ni effectivement certainement il s'agit du terrain de Petersen c'est un terrain bi nga xamante ne Euh, à l'origine euh, dafa amoon benn société bu tudd Sogebac bu nga xamante un peu le condensé du secteur privé et de la ville de Dakar ñu am ci ay action donc ñoom ñoo amoon objectif bu créer foofu benn centre commercial c'est un programme intégré boo xamante ne dafa waroon peu fluidifier la circulation dans Dakar la mobilité urbaine donc ñu xalaatoon ne il faut le centre-ville créer fa centre commercial créer fa gare routière donc ñoom ñu commencé les travaux à un moment donné pour quelle raison je sais pas Abdoulaye Wade a décidé d'exproprier euh, le terrain mais ce qu'il faut relever c'est que dañ ko jël ci ay commerçant jox ko Et en général, il est connu de tout le monde qu'expropriation, c'est pour cause d'utilité publique. Je ne vois pas dans quelle mesure le manager, les commerçants, parce que les continuent, les commerçants. Mais bref, c'est son pouvoir discrétionnaire, il l'a fait. Mais exproprié, jox ko euh, benn société bu benn agence bu tudd ASMA c'était effectivement pour le recasement des marchands ambulants mais le problème c'est que c'est il n'est pas dañu ko daaneel on a créé Anama Anama ñu mujj ko quand le régime actuel est venu ils ont repris l'affaire parce que n'empêche la ville de Dakar avait aussi ses prétentions ville de Dakar était actionnaire dans cette société le secteur privé était actionnaire donc ñoom aussi ils ont trouvé en vertu de quoi ñu war a nangu seen terrain ne dañ fa naroon centre commercial di ko jox ñeneen ñu fara defar centre commercial il voulait une justification effectivement par rapport à ça depuis que Macky Sall est là le dossier sur sa table donc dans, au niveau des services déconcentrés de l'État ñu nga xam ne ñu ngi xool la quelle formule adopter pour que tout le monde s'y retrouve parce que même ville de Dakar dans son objectif de faire des centres commerciaux sur cette zone avait pensé aux marchands ambulants il fallait faire un centre commercial une rotonde pour le commerce formel mais également des espaces pour les marchands tabliers marchands ambulants mais puisque Wade moom nekk xam nañ li mu doon defee bon il avait dit que les villes de Dakar secteur privé écartez-vous je donne tout aux marchands ambulants ça n'a pas abouti parce qu'il n'est pas allé au bout de sa logique mais quoi qu'il advienne le dossier est sur la table de l'État de manière générale les services déconcentrés certainement ils vont décider de la suite à donner s'agissant maintenant de l'argent dont ils parlent je suppose que ils veulent parler du fonds Gates il y a une subvention de la fondation Gates mais avant euh, d'aller au fond des choses je pense que nul n'ignore que il y a des règles de gestion universellement acceptées est-ce que vous pensez que la fondation Gates l'USAID, le PPIF, la Banque mondiale, pour prendre de l'argent, remettre ça à Didier pour le compte de la TFM, Didier détourne Khalis sans qu'il y ait bruit. Nous, on a fait une requête pour préparer un projet d'envergure, un projet structurant. C'est-à-dire, nous, on pense que, véritablement, affaire aux marchands ambulants, on ne peut doit régler le problème de manière définitive. et on a un projet de structuration de l'espace et d'aménagement urbain moo xam ne on veut véritablement chaque quartier mu am une fonction on a pensé tout l'axe qui part de des quartiers traversé Léon Félix Éboué traversé Petersen axe def ko une zone de commerce et d'artisanat et pour cela on a on ambitionne de construire là-bas de grands centres commerciaux d'une capacité de places qui pourra régler de manière définitive le problème du commerce de rue dans le département de Dakar. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'il fallait faire Il fallait trouver des fonds. Et les fonds, nous estimés, c'était à l'ordre de 20 milliards. On a dit, on a passé sous là. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut aller dans le marché financier. On va faire des levées de fonds. Mais en amont, la levée de fonds demande certaines, certaines Déjà, il faut une garantie il faut une capacitation, il faut être audité. par rapport à ça, on a sollicité la Fondation Gates pour qu'il nous accompagne. Madame, nous accompagnez-nous pour nous mener des levées de fonds. Nous avons fait une subvention de 5 000 dollars pour que nous capacitions un service. Pour que nous fassions 5 000 dollars, 2 milliards 500. pour capacité. 5 millions de dollars autant pour moi. Parce que 5 millions voilà, voilà. <laughs> Euh, c'est bien de corriger. Donc c'est ça, il fallait capaciter les services, il fallait faire l'audit. On a fait un audit au Bloomfield à Moody's pour déjà la capacité d'entrer dans le marché financier. il fallait également préparer toute cette démarche administrative euh, en termes de formation en termes de tout ce qu'il y a à faire parce que bon je suis pas très très ancré sur la préparation mais en somme c'était de préparer la levée de fonds Alors vous êtes toujours sur la TFM Miroir du Sénégal où on tournait l'émission Tek une émission qui relève la citoyenneté au Sénégal suñu thématique du jour c'était la problématique des marchands ambulants un casse-tête sénégalais ak suñu invité en or qu'on va beaucoup remercier le grand Didier Awadi merci pour tout sonal nañ on a fait le tour de Dakar merci pour tout. non ah, man remercier parce que franchement j'ai beaucoup appris aujourd'hui pour moi c'était très important parce que souvent euh, soo jëlee micro tu te fais un porte-parole mais parce que xamuloo réellement parce que dundee ak nit ñi que demoo seeti gars yi donc euh, merci en tout cas c'est une belle expérience pour moi et aujourd'hui je comprends un peu mieux mais ma xam naa ne en tout cas jàng naa lu bëri donc je te remercie bon voyage à ton émission. merci mon grand. merci ok alors c'est comme ça que ça se passe sur la TFM Miroir du Sénégal c'est une émission teg xel xel ci kaw xel foog ñu xel xel yi di xel li Peace si beneen émission. teg xel c'était sergent Médina les enquêtes du sergent Médina vont continuer peace